di digganteem ak jumaa ju sell ji toll ci ñetti kilomètre Serigne Modou Moustapha sanc ko ci atum 1913 ci ndigalu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul Serigne Moustapha Mbaye mi de village yu dëkk bi di ñu ci gën a àndil ay leeral ci taarixu sanc gi. ci 1913 sëñ Modou Moustapha moo ko sancoon. moom la ko sëñ waajuram sanc loo woon moo ko mel ne sëñ Fallou kenn ku ne mënul sanc loo woon fenn. ngay ñëw jóge fa ñëw joxoon la jukki nga di ko def nga di ko jàng ba fa jukki ba yem mu ne foofa boobaa mooy dëkk ba yàlla def na lalee buñ paree naa leen ko woon ma nga ne mooy fi ñu taxawoon fii la jukki bi yemoon boobaak léegi nag mu nekk fi ay waajur ak njabootam ñoom ñëpp nekk fi jaar fi ku mel ne sëñ Cheikh Mbacké sëñ Ahmad Tindodi naaw ñooñu nag ñi leen jiitu woon mooy njabootu sëñ Tuubaa gi yëpp nag ku ci dul sëñ Fallou rek mel ne ci kër gi nga jaaroon lu ëpp ñetti junni doomu aadama di fi yeewoo terewul tindood yi amul benn infrastructure boo xam ne ni askano mën nañ caa jëriñoo rawatina na ci lu jëm ci wàllum yoon ndax moom moo tax mu xaw a mel ne daa sore ak dëkk bu sell bi di Touba rawatina lu jëm ci wàllum courant wala itam ay bërëbu fajukaay chef de village bi di fësal ni daa mel ne ñoom duñu wàccoo ak impôt yi nga xam ne ni war na leen seen diggante commune bu Touba wala itam nguur gu Sénégal dafa mel ne itam dëkk bi tindoo yi dañu koo fàtte yàqu-yàqu yi am ci mbedd yi ci tali yi te dara waralu ko ludul seetaan bi seetaan bi nga ëpp te ñi ngi waxtu wu ne ñi ngi def sunuy droit ñun ñun li ñu buur sant ak li ñu séq ak buur mu ñoo ngi koy def ñoo ngi fay lempo di di di di di di woo mbooloo mi ci diine di leen woo ci lislaam bu watee jotee itam ñi ngi koy wate ñi ngi koy def lépp waaye ñun de mosuñu ñoo defal fii dara jamono ji li ñuy ñaan moo ñu defal leen ay infrastructure waaye itam yoon wi nga xam ne moom moo jógee biir Touba jëm ci ndóot yi toll ci ñetti kilomètre ak genn wàll ñu daal leen koy defaral gudrone leen ko ba oto yi gën faa man di jaar waaye itam askan wi nga xam ne am nañ fa ay pàkk te dëkk bu ñu fa gën a mën a yàlli daal di yaatu gën a ñame itam nga daal di dikki foofu la ci ndóot yi dañoo bokk ci réew mi ñu mel ne dañoo génnee ci réew mi dañoo defalul dara ñun xam nga li ngay soxla dañ lay jox dara nga manqué dara mais ñun dañoo joxul dara dañoo joxul dara te ñuy def li li nga xam ni moom la nit ñi di def ñoo koy def te ñun joxuñu ñu dara amul yoon amul courant amul dara dara nekku fi man kenn mësu teg dara ci sama loxo ni ma séddale ko ci dëkk bi amul.